seydina mawlana muhammadin wala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman faraxtu iblisa wa jël nafasiri wa bismillahi rahmani rahim ayaasa minillahu inda jiwali iblisa is naadaytahu biyawali nafaari xari lawul xablul fi darri bi axlin barin luusu di kadari nafaari xari lawul fi ndakaaru kulla zan li jarawul makaaru allamani rahmanu fi safina bi annani xaadimul zilmadina barani lahu ladal kunaakiri min kulli jalbil almanakiri barke borom Tuba barke borom Tuba barke borom Tuba màggub yàlla baaxim ñol màkk ngëneel alxuraanul karim barkeb xasida Serigne Touba yi barkeb Mame Cheikh Ibrahima Fall barkeb Serigne Fallou Mbacke barkeb Cheikh Abdoul Karim Mbacke borom makarim axlaa mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bu ngeen ñu gisee tey jotaay gu rafet gii jotaay gu sell gii tabarkalla macha allah ngeen xam ni ñu ngi togg ak sëtub Serigne Touba sëtu Serigne nag boo ko déggee. faw ñu leeral leen ko kuy baayam Cheikh Abdoul Karim Mbacké Cheikh Abdoul Karim Mbacké kuy baayam Serigne Fallou Mbacké Serigne Fallou Mbacké Cheikhul Khadim olof nag dafa faral di wax nan génne du jurmuus muus ñu ngi fii ni ni tey jii jàkkaarloog Serigne Galas Sindi di Serigne Fallou Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Karim Mbacké borom makarimal axlaaq di taaw ci Cheikh Abdoul Karim Mbacké waaye nag taw dafay sori baayam boo ñëwee ba nindi boo bëggee gis sëñ galas doo dugg ci biir kër gi da ngay wër kër gi jàll ca ginnaaw di ñëw fekk sëñ galaas ca dalam mu daal di toog foofu daal di uuf ñi nga xam ne ñoo koy dalal ak ñamuy dalal sëñ galas nag Sénégal set tey moo la ziar si àndandoog suñu mbokki taalibe yi suñu mbokk journaliste yi ñëw fekk ñu fii tey waaye nag dañ olof Njaay dafay faral di wax naan ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo lay wax fooy toog moo tax ma ñaan leen rek ni balaa ñu lay tàmbali question yi ma dalal leen kon sëñ ko sëñ Gallas a ngi nii yaa ngi nii bismillah ci question yi. ah sëriñ ñu ngi lay nuyu di la ziyaara di la wàcce sa wàccuwaay di di la nuyu. ci ci ci bis bi nga xam ne mooy dix-huit safar di màggalu nga xam ne sa maam Sëriñ Tuubaa moo ko sax moo ko sancoon ñu ngi la ciy nuyu di la ziar sëriñ bi ren 2020 màggal bi dafa tombe contexte bu particulier te gis nañ ni teewul murit yi fu ñu nekk ci àdduna ñëw nañ màggal si ban analyse ngay am ci situation boobu noonu mu nekk waaw aouzu billahi min shaitan rajim bismillahi rahmani rahim wasalaatu wasalaam ala sayyidina mawlana muhammadin rabbi sarax li sadri wasirli amri ah gannaaw ba nu sant yàlla nangu julli ci Seydina Mohamed di yaakaar Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal sëñ Taxal Basir sunu borom yàggal ko fi lool di dellu nag di feddlu sunu njëbbal ci Cheikh Abdoul Karim Mbacke mi nga xam ne mooy sunu wasila di sunu kilifa euh, teg ñu ci yoon wi mu teg di sant bu baax Mbacke Balla ndax euh, cant gi sax ak màggal gi sax maanaam ci moom rek lay dellu. ndax maama bi mu waxee ne wa hablanaa maa karimal axlaaxi maa taaw bi bilaa sixaaqi moom ci boppam dafa porté loolu dundal ko yar ci dong yi ba ba ba loolu di dox ba yegg si fii euh, tàmbali bi nag noo ngi leen di nuyu bu baax yéen waa Sénégal set ñëw fii ci barab bi déplacé xam ne bés bi bésu Sëñ Tuubaa la ngeen indi seen équipe yëpp caméraman yeeg preneur de son yeeg ak ñi seen équipe bi ngeen àndal noo ngi nuyu itam suñu mbokk yi nga xam ne ñoo bokk Mame Mara Mbacke sëñ Fallou Mbacke ngi ni toog sama rak bokk ci waa kër sëñ Cheikh Ndoulo euh, sëñ Khadim Thiaw ngi nii di jàmbaar di bi ci kër gi ànd ak ñu mu war a àndal yëpp euh, ñoom Mame Lamp ngi fi ñoom Balla Samb nekk ci kuréel bi di ma jàppale ci liggéey bi fekk ngeen ma fii nag ci kër gi nu fas yéene dundal màggal gi nga ko nag muy nekk ci contexte boo xam ne xaw naa yéeme waaye. nun ndigalu sëñ Muntaxa bi rek maanaam jas barrière yi sànq wax naa ko nekkoo jas geste barrière bi njëkk mooy bëgg sëñ Tuubaa geste barrière yi ñu ngi nii ñu ngi ci gel baa ngi nii masque baa ngi ci loolu ndigal la waaye daf fi fekk beneen geste barrière boo xam ne sëñ Tuubaa njëkkal tegal barrière muy xam yàlla bëgg yàlla dundal yàlla jéem yar nit ñi ci euh, wàllu set xam nga set boo boo setee ci ngay àgg ci sell nit ki mun ta sell te setoo donc corona bi feebar bi rappel la dafa mel ni sunu borom dafa daf ñu def rappel moi euh, dama waxtaan sama benn xarit ne ko man de yonentu yàlla corona laa ko tuddee mu ree mu ne ma sëñ bi lu tax nga wax loolu ma ne ko waaw ndax daf ñoo fàttaliwaat yàlla sunu borom te lim ñuy fàttali yàlla sunu borom loolu sëñ Tuubaa jugu ci kon ñun murit yéemuñu ñun ñun ñun feebar bi yéemuñu sëñ Tuubaa mënu yéem. ndax démb ak bërki démb ak tey jii ku mën a def diggante Dakar ak Touba ci péage def ci cinq heures de temps te nga fay sa xaalis doomu aadama yooyu yëpp kenn mënu leen ndaxanoo sëñ Touba naxul kenn ngëm nag fois dafa jàll raison li sëñ mu taxaa waxoon rek ab ab ab ab ab mbindeef la bu yàlla yebal na dox doxam dañ ko yónni waaye nu nit yàlla bind bi mu nu bind ja sant sant nu jaam ko te gëm ko ñun it nu jaamu yàlla ku mel ne Seexul Xadim nag nekk suñu diggante suñu borom mooy suñu geste barrière moom laa doon wax léegi geste barrière yu ñu la ñu utiliser ba nga xam ne corona bi sax laata muy ñëw fii ñun amoon nañ geste barrière bu yàgg mooy gëm sëriñ bi yem ci sëriñ bi yem ci ndigle ndénkaane sëriñ bi kon màggal gaa nga noonu nakk na ci contexte bu bu particulier dëgg la waaye nag gérer nañ ko ni ñu ko war a gérer te yaakaar naa ne bu fi buñ fi jógee ci màggal gi màggal gi dina yóbbaale yóbbaale corona bi incha jërëjëf sëriñ bi euh, beneen laaj rek mooy euh, màggal màggal symboliquement parce que ñu sama genre yi dañu bari dañuy ñëw rek topp ci euh, coow li symboliquement boo ñu ko doon expliquer mooy lan. waaw màggal jomm na jafe na ndax ki ko ki ko sanc moo génne wax bi sëñ Tuubaa moo njëkk baatu màggal waaw 1922 jàpp 23 dafa woo mag ñi ne leen yàlla day xamal na ma fii ma toog ci njarim sama bés boobee nga xam ne maa ngi ci génnoon doon liggéey rasulaay bëgg a doon xaadima rasulaay ma fexe ba suñ borom teg ma charge boobu man sëñ tubaab ba ma dem liggéey ba ñëw bëgg ko añ bokk añ ak ñëpp jot na ma war koo woote na ngeen nangeen ma ci santale yàlla kon sëñ Tuubaa moo njëkk a génne le mot màggal moo ko njëkk wax ndax mag ñi tabaskiwaat lañ doon wax mu woowaat leen woo sëñ Bally Faly Dieng ne ko loolu bu ngeen ko defee day nduru ne da ngeen sàllalu ba si wala damaa sos loo xam ne bidaa la te man sëñ Tuubaa maa ngi diggante alxuraan ak sunna man duma sos bidaa tuddi leen ko màggal mu nekk nag baat boo xam ne màggal màggal lu doy waar la màggal lu yéeme la ndax euh, quintessence ak ak euh, ak euh, diine l'islam la Sëriñ Tuubaa delloo njukkal ndax nit sax mun naa comprendre nga nga nga nga nga ngay dem xarit ji nga daj fa lu metti jour bi nga dellusee nga ne ah sant naa yàlla ndax yàlla muccal na ma waaye Sëriñ Tuubaa dafa bàyyi ba bi muy dem bi muy dem xaratu xaratu yomb sabti boobu nga xam ne maa ngi génn le cent août 1800 1800 1800 quinze 10 août génn fii Mbàkke Jolof fekk def na xël ba gis yonent bi saa salaam mu ne ko ah mbiri tàmbali na faw nga génn Touba mu woo sëñ Fallu woo sëñ Mourou Moustapha génn julli fajar génnaat amul droit du gat ci biir kër gi moom sëñ Touba ñu ne nañ ko génneel bagage yi te bagage yëpp du ay yére du ay dàll du ay sañse bagage yi alxuraan la alxuraan ak xasida ak fulk sëñ Touba bi mu génn ci jàkk ji amaatul droit du gat sax ci këram naan day tàggoo boobu yëg na ci baati na war naa dem 1895 ba 19 juillet 1927 sëñ Touba amaatul jàmm loolu ñuy wax liberté sëñ Touba perte na ko donc kon damay faral di wax naa ne confinement bi ñu dund ci ci ci wàllu feebar bi sëñ Touba njëkk a confiné boppam waaye naka la confiné boppam confiné boppam ci yàlla ak ci yonent bi ndax ku ñu yow yow boo tënkee sa bopp dugal sa bopp prison ku la dugal prison yow du la du la du la saf donc baatu màggal magnification la. ak ak ak ak ak ak maanaam yéegalaat lislaam joxaat ko dayo kon yooyu war nañ ko bàyyi xel nun muriti nag nu santaat ci yàlla bu baax ndax ki nu jiite teg nu ci yoon bi yar ñu ci xamoon na ne jamono dana ñëw danañ am ay agression culturelle am ay agression morale ba jàll sax agression valeur nit ñi valeur sa amatuñ ko lu ci bari bokk sëñ Tuubaa loolu la doon xeex daaw wax naa leen na ñi fi ñëw ne leen sëñ Tuubaa xeexul ay tubaab système la doon xeex tax tubaab bi dañ fiy jógee ñako jàppoon baal na leen sëñ tubaab bi mu ñibbisee le 11 novembre 1902 da leen di jégal ñun ñëpp fii ci pooru pooru euh, maanaam pooru Dakar bi nee na jégal naa leen ne ma sàmba mu ne ko mbàkke mën ne ko waat naa wàcc naa wàccala naa ku ma yaakaar ma sàmba mu ne ko mbàkke mën ne ko bés ñi ki tey ba yow ma xëyaam guñ jëm ku ma yaakaar dootoo maanaam dooto torox ku ma bëgg doo dem safara ku ma gërëm mucc nga koo koy Cheikhul Khadim kon màggal fa la tàmbalee le 11 novembre 1902 boobu ba nigi ni ca la baatu ca la ca la ca bi tàmbali. bi soxla nañ ku leen orienté te sa kàddu yow dina leen mun a jooyante ba teg leen fi ñu leen war a fi ñu war a jaar. waaw aussi jërëjëf loolu moom dama ci am mbégte ndax alxuraan dana fa zakri nafaati zikra say zakru man yaxsha yàlla nee na bu ngeen toggatee def jotaay na ngeen ma fàttaliku mën jotaay boo gis rek jotaay yàlla suñu borom la rawatina màggal gi ah message nag buñ ko sañee joxe ndax nun ay taalib Sëriñ Abdou Karim Mbàkke lañu ngeen fekk nu fi dikk fii ci màggal gi nu woo jaam yëpp woo taalibe yëpp ngeen ñu santale nu yàlla santale ko seex seexul xaddim mu jaar nag ci ndigal Sëriñ Abdou Karim man daal li may woote mooy xale yi ñi maase man ak ñi ñi ma ñi ma mag tuuti ak man ñi nga xam ne maa leen mag tuuti nanu maasawaat fonk seen bopp te gëm seen bopp valeur sëriñ bi lu mu woote lu yéeme te loolu mooy kilewu àdduna te sëriñ Tuubaa wax ko wahab lanaa makarimal axlaaqi maa ataaw bi bila sixaax wahab lanaa makarimal axlaaqi yow yàlla may na jikk yu baax yi te maa ataaw bin loolu ñu bari duñ ko wax maa ataaw bin te bu ñu nañu bëggante waaye bila sixaax te bu ñu te bu ñu noonoo bu buñ taqali ko nekk bu ñu bëggantee war ñoo war ñoo taqali ko muy daayira yi muy tarixe yi muy société civile muy politique bi ñooñu ñun Sénégal noo ko moom waruñu ko yàq dafa am ay valeurs yu fi mag ñi bàyyi muy jom ngor fit fulla fayda sutura kersa yooyu bu ñu demee ba xale yi nekk en perdition te alxuraan waxoon ne wal asr inna linsaana la fi xusrin inna lazina amanu wa amilu salihaati wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr mooy lan wal asr maa ngi giñ ci jamono inna linsaana la fi xusrin nit ñu bëri perte nañu ñu ne ko yàlla lu tax ñu perte ñu ne lu dul ñi nga xam ne wa tawaasaw bil xaq wa bi sabr ñi xam ne dañoo gëm yàlla tey nag dénkante dëgg wa tawaasaw bil xaq nañu waxante dëgg wa tawaasaw bi sabr ñaar yooyu ku ko deful rek yàlla nee na ñoom ñu ngi cette population la day dem ci vers une perdition te xale yi yii ñu leen di gëmloo mooy la mooy mooy mooy mooy mooy mooy l'acculturation mooy di leen génnee ci li ñu gëm ay ay ay nandite ngeen ay ay da ngeen war a dox seen jamono nangam nangam internet bi agression culturelle yooyu mooy bëgg a jël réew mi loolu nag ñu war ci apporter une solution ñun sëriñ si duñu toog rek di nangu àddiya di naan café tëdd nelaw di sañse déedéet dañuy nekk régulateur suñu digganteeg population bi ndax iblis du bàyyi iblis du bàyyi te waxoon na ko Sëñ Tuubaa daan nga ma jeewal waaye man danaa fexe ba dugg ci sa jaboot daan leen iblis du bàyyi kon iblis du bàyyi nag Sëñ Tuubaa du bàyyi ndax Sëñ Tuubaa mooy antagoniste iblis bu doon iblis moins un la ci biir ci biir ci biir ci biir ci biir euh, ci biir résultat ci biir ci biir euh, l'équation Sëñ Tuubaa day nekk plus un donc yàlla dafa équilibré comme nag yàlla moo waxoon na laa nabi yu baax daan dootuma yónni kenn beneen yonent yàlla munu fi yónni waat yonent waaye yebal na ko mel na seexul xadim nga xam ne nag moom dafa ñëw équilibré waat bagage yi kon seexul xadim du li ñuy gis du ay yuuxu du ay njañ du ay njaxas du ay maa bëgg sëñ bi sëñ sëñ Tuubaa jikko la valeur la vision la projet la sëñ Tuubaa projet de société la ni mu tënkee ay njabootam yar leen ci diine ak alxuraan ak sunna lii rek la doon xaar ndax xamoon na ne buñ ñëwee buñ demee ba dans début fee jëm la ca kaw agression culturel mooy am ñu ngi wax waxi lobbying ñu ngi wax waxi franc-maçon di wax waxi ay illuminati di wax waxi sax maanaam complot boo xam ne benn échelle bu yaatoo yaatu boo xam ne dañoo bëgg a faagaagal jullit ci xoolal rek ba ci tëjum jàkk yi sëñ mu taxaa ne kenn du tëj jàkk loolu message la foor mën na négocier lépp ba mu des jaamu yàlla sëñ Touba loolu la waxoon jaamu yàlla moo tax mu ñu génnee ko Mbàkke rek génne ko Touba yóbbu ko ci géej gi kon message mooy ñun waxuma la muriti waxuma la julliti mais la jeunesse entière de ce pays là ci ñoom la ñu wékk lépp nañ xam seen bopp nañ am fulla nañ am fayda te bàyyi caaxaan caaxaan amul sens te sëñ Touba fi may daanee dafa waxoon li gën a cher ci nit mooy temps te Sénégal on perd trop de temps dañuy perte temps ci wax di perte temps cay werante perte temps ci weer bi feeñ nag feeñut yow yow mu di nga man tijaan la dañ ciy perte temps te temps boobu ñu ngi ci maanaam ku nekk day jëm ci benn compte à rebours moo tax bu at mu ñëwee nit ñi naan joyeuse joyeuse année xaw ma lan bon bonne année man damay tiit ndax benn at wàññeeku na ci yow te xamoo ko fi nga war a bëggee di féete sa anniversaire tiital julli ñaari yàq te nga ñaan yàlla yàgg fi te yàlla jéggal la ndax benn at wàññeeku na sa at ndax yàlla compteur buur la du da ngay dem ci gudd fan da ngay da ngay dem di wàcc bi nga juddoo rek compteur buur la ndax xam nga ne kullu nafsin zaa'iqatul mawt dee mënul ñàkk kon Serigne Touba lii rek a taxoon mu demoon géej du lekk bi du naan bi du tufe yi du du du du du yi du oto yi nit ñi sacrifier seen lii ngir ñëw ci Touba yi yàlla lañ fi wut si Serigne Touba yàlla la mu sa woote te ci yàlla lay dem voilà une personne une entité bi nga xam ne lépp la jaay jaay ngorom jaay léppam jël fitam jël jël dooleem jël askanam jaay lépp la jël jaay ko se jaay ko yàlla suñu borom kooku nag bu ñu jooyee ci moom war na bu ñu daanoo ci moom war na bu ko jébbale lépp war na ndax ba muy dem moom kese la woon ànd ak ngor ak fit ak fulla ak ak ak dignité personnalité donc murit message mooy nañu am fulla nañ am fayda bu nu sagal bu nu bu nu bu nu bu nu nan ko sagal nan ko siggil wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jërëjëf sëriñ yaa fonk njaboot ge buy Flash!